مدالي الحق المبين ما للبرية يبين وما لخير لا يبين من بشر ونعم ما سين با جونا زوب لين دم غاربا جوغ لين تاخاو jël leen saako nuy sant say xi Falliloo mbokki Sénégal njàqare jeex na bis ni ki tey ndaxte lu ngeen doon jéggaani faneen ñëw fekk si leen fii ah dama ni mbokk yi su ngeen bëgg a tee lu sell lu neex baax seen wér-gu-yaram bu ngeen doon wër café bis ni tey mbokk yi gis ngeen ndax nag café Serigne Fallou Mbacké di produit bu bees tàq ñëw si marché bi waaye nag wuyu boroomam café kafe Fallou Mbacké 100 pour cent hygiène 100 pour cent qualité 100 pour naturel bii nag maa ah, mbokk yi ku yéex de ñàkk ndax nag moo mujj génn de waaye moom dong la ñëpp di jàmbat café Serigne Fallou ba moo waral bu ngeen i am si ay stock def seen réservation mën ngeen woote bu dee Touba la si 77 636 38 03 bu dee Dakar Ouest Foire lay doon 77 521 39 14 wala Rufisque ngeen woote si 77 027 43 76 wala sax ngeen woote si 77 521 39 14 café Serigne Fallou 100 pour cent café produit bu mucc ayib moo leen di gunge saa su nekk bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala makin wa ala alihi wa sahbihi ridwaani wa tamkin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di nuyu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mi nga xam ne moo taxawal yëglikaay bi ak mboolem ñu ko ñu ko àndal di rafet lu baax ndax lépp loo xam ne luy jàllale njàngaleem sëriñ bi la ak luy xamal nit ñi seen diine seenu taalibe loolu yaakaar naa ne ci yu mel nii la gën a gaawe moo tax kon mm, mu mat a fonk lool ndax loo xam ne mën ngaa xëy jàngal ay nangami junniy nit ci benn benn benn benn benn waxtu kooku jamono Hmm, lu mu indi la kon nag lépp lu jamono indi fexe ba xool lañ lañ cey jariñoo ñun ñu ñu ñu jariñoo ko te ginnaaw foofu fu ñëpp yi jàllale seen yëf la kon jàllale fa yow say bagage loolu lu am solo la waaw ah, suñ son bu moom nga wax itam moom mm, eh, jëmm ju jëmm ju ju ju ju ju ju kiimaane la woon yàlla dogal na fekke naa ko daanaa fa dem itam di ko ziyaare ci am na ci boo xam ne sama waajur moom ko yónni woon muy soxna moom yi bi demee ba dox li may dox ba noppi mu dama laaj jàng mi moom na laaj la daa mel ne daan laaj rek ma ne ma looy looy jàng ma ne ko yaa ngi jàng saalik ak sonraawul jaahiliya mu laaj ma foo ci toll mu wax ko soxoraaw bi foo ci toll mu ne ko diwaanu umrul xëy si mu ne ma waaw téere daa bari larx lool xam nga da koy bàyyi te jël beneen ak sëñ Ibrahima Diop Machar yi waaw daa bari larx waaw ma daal dem jël sëñ Ibrahima Diop Machar yi tàmbali koy jàng sëñ jëli waaye booba téere bi yomb na ji man lool itam ndax daanaka xam nga. boo jàngee toll foofu daanaka ma nga xaw ma a yër waaw waaye fan yooyu ma demaat ci sëñ Saaliw mu di ma ko laaj son raw ñoom daanaka dañ ca safaano woon sëñ Saaliw daa bëggoon son raw kii bañ ko waaw sëñ Saaliw moom bëggoon adab rek waaw ma jàng ko nag <laughs> ci sëñ Saaliw waaye pour wax rek ne moom ko amoon xam-xam la te bëggoon ko te bëggoon njaboot lool daanaa fa dem itam di ko bindal ay xasaayit di ko jox waaye li ma seetlu ci moom rek ni mu organisé woo nga xam ne heure bi muy génn sawaal lay doon maanaam am na sonné bu mu fa daan def ko xam ne bu sonné sawaal mu kii rek foo mën a nekk ci dëkk bi da lay wóor fi ne boo demee rek da nga daal di àgg ci saas waaw noonu noonu noonu daan def bu xasee ubbi itam bu jullee tisbaar ba noppi teg teg mbiram mépp ci kii dem na ci yoon waxoon bi ma leen maa ngi fekk ñu benn kuy ñaan <coughs> ñaan ñaan sëñ bi ñaanal ko ndax xuma day basket xawma basket xam na xuma sëñ boobu xam na basket basketteur la nañ ko ñaanal kim àndal li ko wax sëñ bi waaye boobu it xawma ndax sëñ bi xam na lu waajo li muy wax lu mu doon waaw gis naa ne ñaanal na ko boobu itam yooyu yëpp daal liñ ciy jànge rek mooy ñoom ay nit lañ ñoo xam ne dañoo xajowoon lépp ndaa eh, alxuraan yi mu meloon ci noo xam ne yoroon ci daara joo xam ne ñoom ñëpp dañu ko féetale woon loolu jox ko muy jox ko muy ab liggéeyam daanaka ñoom njaboot suñ tubaab yëpp seen seen i doom foofu lañ jàng alxuraan yi ci ëpp koo ci tudd rek am na doomam joo xam ne nekkoon na foofu ci moom loolu it di lu am solo loo xam ne lu mat a jàng ci jamono ji la ku nekk la man sama ñu nangul la ko ni ñu ko nangaloon alxuraan yi nga xam ne sëñ bas sëñ saali bi fa la jàng ak sëñ abdoulaye di fa la jàng ak sëñ fàll rek te ñoom ñi fa yóbbu seen doom sax ñëpp suñu teewul am nañu ay daara waaye nangu na ñoom nam ca tafaruuxee ak nam ko féetewoo ñoo nangul ko lool lu am solo bu daara defoon noonu yëf yi gën a gën jàngale alxuraan ci daaraam bu gisee koo xam ne mën naa jàngale xam-xam mu nangu ne keekat lii am na lu mu mën te mënu mu jël yóbbu yóbbu foofu kay jàngale xam-xam bu gisee ni kii alxuraan mën na ko mën nga wax ne kenn mënu ko noonu mu nangul ko loolu loolu am solo gis nga moom it fi ne jël na téeméeri nit ak ñaar fukk ak nangam ëpp na ko sax jox ko sëñ Saliou pour wan ne ne moom sëñ Saliou mu féetewoo tërbiye gi kon loolu nangul ko loolu itam xam nga loolu it fi ne boo xoolee fi ne loolu loolu yombul léegi waaw ñu jébbalu ci yow di say donga ne ci daara ji nga jël leen jox ko xam ne yéen a bokk bàyyi mu wëral leen ñii foofu la ñuy féete ak defaru xol bu set moo ko man loolu dina am solo waaye nag ñoom ni leen yàlla préparé ñoom ñëpp dañoo nekk ñoo xam seeni xol dafa set ñooñu kon pour wax la ñoom ñëpp ay ay école lañ yoo xam ne kon des di mën a jàng ci ñoom lu bari mu doon na ku nite xam ne dafa dafa dafa dafa ñuy wax discrète waaye ba noppi itam nag nekk koo xam ne lépp li wax al axsu bil asbaab lu mën a doon am na baatin bu mu fees waaye nag sabab yu saayir yi da koy jëfandikoo fi ne amoon na boîte pharma boîte boo xam ne ay garab rek ñoo fa nekk ci këram mboolem ku fi nekk ci docteur yi itam dana xaritaw yéen ndax boobu njaboot gi ñu di di di di moo laaj lool ay anis ak ñoo ngi yëpp ñëpp ay ay ñoom ñoom ñu ci moom. ndax ñu fonk woon wàll boobu. xam ne nit faaw balaa jaam yàlla dafa wér. moo tax yooyu yëpp lu ñu mën waaye mu jël léppam nag def ko muy muy jàngale. nga xam ne génnatul fenn kilifa yëpp nangul ko ko nga xam ne daanaka si ëpp ab génnam daawul bari ñoom ñoo ko daan fekk si. ko daan fekk si nga xam ne euh, sëñ Saliou daana fàttaliku daana ñëw këram guddi waaw guddi maanaam sëñ Cheikh Jaxate ak sëñ Sonia bu ku min kër sëñ Saliou jamono boobu soo gisee ñëw fi rek yow ittee joo amoon da ngay jàpp ne te lu ndax nit ñi mën a yàggee moom nga xam ne audience mu doo ko mën a amati <laughs> loolu moom seetlu naa guddi guddi la fa daan ñëw waaye bu xasee ñëw daanaka ñu ñu ñu téeméer nangam yooyu kenn du mën a àggati jaxasoo amoon na ko ak moom waaw euh, li nga xam ne mooy <clears throat> njàngale mi itam nga xam ne daf ko féetewoo euh, génn tu Tuuba sëñ son sëñ Fallum sëñ son bi moo ko nettali nee ma liy sabab bi moo bari ñu ci wax yu bari bari naan dafa am ci wàccu liggéey ci waa kër sëñ bi ko fi moo tax mu ne dootu génn ci Tuubaa waaye lay sababu dëgg-dëgg suñ suñ fàllum suñ sang bi ni ma ko nattalee nee dafa doon def tournée ci yi <coughs> Bawol xaw <coughs> léegi mu demee ci benn dëkk am ñu ko tegtal ak kilifa damay bañ di tudd tur yi waaye kilifa googu dañ ko ne boo demee foofu ci ñekkoon sëñ Tuubaa bi ñëwee sëñ son te nga yónnee laaj ko doom boobu am na doom bu fa nekk boo xam ne lu ci bi war a <coughs> nga laaj ko ko mu pour yóbbu ko ci sa daara mu bokk ci comme mag ñi ci sëñ Tuubaa ne woon moom njabootam bokk ci ñi ne ci daara ci waaw euh, loolu liñ mm, ko waxee sëñ son bi sëñ son bi ne waaw loolu koy daal di woo koo xam ne xam naa xeetu maj soof yooyu la daal bàyyi xaal wala maj na ko mën a tudde daal ñoom woo ko ngir yónni ko ca foofa ci dëkk ba wax kilifa ga loola na maanaam wax suñ soxna bi na ko mën ko ne ko bari naan Abdou Sabat ñu jox ma ko féete ko ci daara bàyyi xaal bi ne ko ah loolu kay tabarkalla baax na de daal ni bërit dem bi mu demee ci bunt bi mu dëppaat daal di ne sëñ Sonhibou ndax am naa ci xalaat ci loolu am na lu ma ci bëggoon a wax de ndax man nas naa ci mën naa ci wax sama xalaat sëñ Sonhibou ne ko bisimilah mu ko man de damaa xalaatoon ne maanaam njàng mi njàngale moom mi ngay def loolu ngay def Touba boo sax ci rek te bañ am soxla ci leen déglu sa maam ba sa sa sa sa ba xam <laughs> waaw waaye dem féetewoo loolee te ne ca bàyyee bàyyee sa bopp ak yàlla nag te te ko ba xam. nee na bi nga ko ko dóor yar nga xam ne moom tournée yi ko annulé del si waat Tuuba boobu boobu boobu la tàmbali ni mu doon def noonu mu ko def leen dem gaar jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi mbokki Sénégal njàqare jeex na bis ni tey ndaxte lu ngeen doon jéggaani faneen ñëw fekk si leen fii ah dama ni mbokk yi su ngeen bëggatee lu sell lu neex baax seen wér-gu-yaram bu ngeen doon wër kafe bis ni tey mbokk yi gis ngeen ndax nag kafe seriñ Serigne Fallou Mbacké di produit bu bees tàq ñëw si marché bi waaye nag wuyu boroomam café kafe seriñ Mbacké 100 pour cent hygiène 100 pour naturel bii nag maa ah, mbokk yi ku yéex de ñàkk ndax nag moo mujj génn de waaye moom dong la ñëpp di jàmbat café Serigne Fallou ba moo waral bu ngeen bëggee am si ay stock def seen réservation mën ngeen woote bu dee Touba la si 77 636 38 03 bu dee Dakar Ouest Foire lay ngeen woote si 77 027 43 76 wala sax ngeen woote si 77 521 39 14 café Serigne Fallou 100 pour café produit bu mucc ay moo leen di gunge saa su مدالي الحق المبين ما للبرية يبين وما لخير لا يبين من بشر ونعم